mbokk yi ñu ngi leen di nuyu rafetlu ànd beeg Sénégal 7 ñu ngi am mbégte euh, sekk jotaay bi ak euh, kenn ci ñi nga xam ne ràññeeku nañu lool ci biir parti politique bi di PASTEF te Ousmane Sonko jiite ko muy euh, Diop Taïf niñ ko gën a xamee Diop Taïf la nekk ku actif loolu ci PASTEF Taïf fële ca tuuba Touba ñu ngi leen nuyu Diop Taïf. di la si ci Sénégal 7. maa ngi lay di la ziar. Mm-hmm. di mbokki internet yi di nuyu patriote yëpp. Mm-hmm. kenn ku nekk fa nga nekk maa lay jox loxo di leen jéggulu aussi di leen masawu si coon yëpp. Mm-hmm. di leen baal ak di leen baalu ak. di nuyu sama sama genn wàll Ibrahima Guèye leer di ko ndokkalee kii tout tànk bii mu jël tuddee ko président Sonko mu sell mi. di ko ñaanal yéen jum am rek yàlla na ko suñu borom def. yàlla na fekkee lépp. yàlla na am nday ak <coughs> baay. Mm-hmm. waaw maa ngi sant ñëpp di jégalu ñëpp nag. président Ousmane Sonko. Mm-hmm. dem ngeen ba koy tudd doom. Mm-hmm. lu mu représenté si yéen au-delà de euh, yaakaar bi nga xam ne moom lay susciter à travers le projet qu'il porte. waaw no président Sonko moom man dama gëm ne c'est le Sénégal en miniature. cest à am yaakaar ci moom. yaakaar nga xam ne suñu maam yi dañ ko amoon ci moom Dia am ko Cheikh Anta. am ko ci Thomas Sankara ci Omar di Diop yaakaar googu dafa ëpp parce que autant média bi dem woon nii Sidi demul woon nii tey jii nag jeunesse bi ñoo ñoo approprié projet bi bi mu wootee bu njëkk dañ ñaan président Sonko candidat réseaux sociaux yi le président Sonko candidat jeunes yi la hmm. mais léegi dem na ba ñu tudd mag yi Pastef mag ñi sax ñoo gën a bëgg ndaw ñi hmm. cofeel googu nag ak yaakaar googu ñu am qualité humaine yi xam ne nii daf ko daf ko làmboo mu nekk soo des qualités c'est c'est c'est c'est c'est les Sénégalais. Mm-hmm. moo tax nit ñi dem ba di ko tuddee ay doom. parce que fan yee maa ngi laajte rek ñu ne ma presque léegi li mu am ci ay ay turandoo presque jege na trois cent. Mm-hmm. xam nga loolu c'est énorme mm-hmm. te li xew fee dafa yéeme lool Ibrahima Gueye ni mu def tey. parce que bettul parce que jëmm ji Ibrahima tuddee tuddeen doom président Sonko loolu bettuñu loolu bettul kenn parce que ni ñu mel ñoom ak projet bi ni ci Ibrahima Gueye mel a tax. mais président Sonko tey ci tudd mi dafa defaat miracle. may fàtte ne Gànnigaal bañ fa demee rek amoon na ko xam ne nii tuddee nañ ko ko demoon na ba gis ko euh, xale bi matul amul sax un nga xam ne partout dans le Sénégal ñu ko tuddee ay doom partout dans le monde ñu koy tuddee ay doom mooy cofeel googu c'est-à-dire lim làmboo ak li suñu borom def ci moom ak li suñu borom def ci ñi ànd ak moom dafa dafa extraordinaire loolu c'est inexplicable kenn mënu ko expliquer mm. tey jii soo déglee waa marché Dior bi ay commerçant tëj seen i magasin ndax dégg nañ ci koñ bi ne tuddee nañ kenn Ousmane ko ñuy wër ci koñ bi ñu xool kan ah lañ tudd loolu am yàlla xam ne loolu yàlla mi ngi may seede hmm. ay commerçant ñu tëj seen place dégg am nañ kuñ tuddee Ousmane Sonko dañu yaakaar na Sonko dafay ñëw wala non non dañoo dégg rek dégg ne Ousmane Sonko ngeen tudd moom ngeen dégg moom lañ tuddee doom ji hmm. yàlla xam ne ñuy wër xamuñ sax man maa ngi ba xamuñ ne Ibrahima Gueye ne doom ji hmm. noonu garaaw laa lay wax nii loolu tax ma ne est ce que Macky yi opposants yi xam nañ kan la ñu amal affaire c'est que loolu mooy problème bi ñu ñëw li gën a gaaw indi seen i xéewal ñii di joxe ay 5000 5000 di ko jox Ibrahima Gueye ne ko jëndee ko kuus. waa commerçant yi commerçant marché Dior laa wax nii de ñu ngi may dégg bu baax. ba pare teg ci ne su ngénte di jàllee xew-xew bépp jàll. ñi ngi wax waajuru mu ku jigéen ki na ànd ak bébé président ko indi ko ci marché bi. ñu décoré ko ñu jox ko ay parfum ñu jox ko lépp loo xam ne ay diwlu ak ay poudre. loolu moo nekk beneen miracle boo xam ni président Sonko chaque jour mi ngi koy wane. miracle daal ngeen ko jàppee noonu. non euh, Ousmane Sonko c' est un miracle c' est à dire c' est un don mm-hmm. fànn gu nekk suñu borom wane na ko ci fànn gu nekk mais nag comme li mu waxoon surtout munaafiqoon na maanaam suñu borom euh, bi mu wàccee yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu woote li mu wootee am na ñoo xam suñu borom dafa defoon kiiraay seen diggante ak moom duñ gëm. mënuñu feex ba gëm jàpp ne ñi ànd ak Ousmane ñi jàkkaaroo Ousmane Sonko suñu borom dafa def benn kiiraay si ñoom képp ku ànd ak moom ci projet bi ndimbal suñu borom nga da ngaa war a sant. d'accord parce que li ma waxoon li sa li sa turandoo waxoon suñu Abdou Khadir rek nee na xamuñ kuñ xamuñ xamul jàmbaar mais kuñ dimbale la xam. Hmm. damaa jàpp képp ku ànd ak Ousmane Sonko ci projet bi dañ laa dimbale. Hmm. ndogal borom la. d'accord waaye du bëgg moo tax nga ànd ak Ousmane Sonko hmm. ndogal la rek. waaw d'accord ci loolu sax euh, Diop. Euh, te incha may wax ci boobu rek ne mooy groupe volontaire patriote yi décide nañ ne képp ku tuddee Ousmane Sonko doom incha allah mu nekk turandoo valise ba ñoom ñoo koy defal ñoo koy yóbbu loolu moom groupe WhatsApp volonté jaayante nañ loolu d'accord d'accord alors ñu wax ci li nga xam ne mooy nemmeeku tour yi muy tournée politique yi ñuy def ngir euh, gën a jege ji askan ba peut-être euh, gën a taataan jafe-jafe yi ngir gën a apporter ay solutions yu gën ci dundinu doomu aadama yi dundinu Sénégalais yi particulièrement euh, naka la mbir mi di demee nemmeeku tour boobu gannaaw incident yi fi amoon jamono ji naka lay doxee waaye nemmeeku tur bi alhamdulilah lañ wax parce que lañ ci am lépp kawe na suñ jot. c'est-à-dire ñun dafa am benn directeur de campagne suñu benn directeur de campagne xam ne moo ñuy bi moo koy def. mooy mi ngi tudd Macky Sall jim jimboor yi ñun dañoo am nit ko xam ni moom moo ñuy defal marketing dañoo am nit ko xam ni moo nekk suñu directeur de campagne. ci naka Ousmane Sonko mel rek moom moo ko créé moo ko def. ci naka fu Ousmane Sonko àgg ci communication rek jëmm jooju la kon ñi ngi sant baax di wax alhamdulilah Macky. Hmm. ñu ngi lay sant di la jaajëf patriote bu nekk heure bu xëy war naa ñaan a ci loolu loolu moom yàlla def na ko te mu xamu ko hmm. patriote bu nekk war naa ñaan parce que su su rajowul Ousmane Sonko duñu xam Ousmane Sonko problème Adji Sarr bii mu orchestré lu Ousmane Sonko am tey bokk na ci. ah justice jëlee gu si décision. xaaral maa gën xaaral maa gën nga nga tuumaal ko. xaaral maa ngi ciy ñëw danañ si ñëw maa ngi yow danañ si ñëw. xoolal lépp lu Ousmane Sonko laal. Macky ne du lépp lu Ousmane Sonko laal ku ànd ak Macky na ko du ci daal diabolisé par diabolisation jihadiste terroriste salafiste ibaadu dem nañ ba di ko woy rebelle suñu borom di gën a jal-jal bi mu jóg ci kaw bërki dem suñu nemmeek tuur bi yaa ko wax suñu nemmeek tuur bi ñun dañoo demoon doon nemmeeku di seet suñu mbokki Sénégal yi mu nekk benn acte benn droit boo xam ni garanti par la constitution même Sénégal bu nekk am nga droit def ko Macky Sall 2011 mu def deux fois tour du Sénégal kenn ay kenn xooxatulu ko pour pourquoi Ousmane Sonko nag ne da koy def mu ne du ci daal te Ousmane Sonko ba muy dem senegal Sénégal yëguñ ko dafa wax déclaration daan ne wowuma kenn damay dem nemmeeku tuur sans tambour ni trompette loolu la wax. ñun ñii bokk ca ñun ñii demoon dëgër bopp moo ñu yóbbu waaye Ousmane Sonko wóol kenn ñu dañoo dëgër bopp ñun dañ lay topp dëgër bopp moo ñu si yóbbu. kon est-ce que yéen créé yow leen problème yi fa dinaa si ñëw xoolal keroog. Mhm. Sénégal yëguñ ñu sax Ousmane Sonko mi ngi def nemmeeku tuur wala boog patriote képp ñoo France 24 partout vidéo boobu ma jël rek vidéo boobu ma xam ne man dama doon live vidéo boobu ma jël rek live simple live boobu def na tour tour du monde France 24 TV5 ñëpp médiatiser ko wax ne Macky Sall kat dafa am benn adversaire politique son principal opposant da koo xañ na ko doo dem ci Sénégalais yi ñëpp ba ci sax Sénégalais yi xam dañoo ànd ak Macky Sall sax d'accord ci ne lii rek dafa ëpp parce que lii nag teguñ ko Macky Sall mu waru ko teg keneen hmm. tax na wax dëgg yàlla dañ cee am na lu kawe suñ jot Sénégal yi taataan nañ Sénégal tatangal ñu Sénégal teeru nañ wax nañ ñu fii métti te Ousmane Sonko de plus en ñu dañ koy sant parce que ñun liñ découvrir as tuut ci Sénégal mu nekk ay métit mu nekk ay manquement ñu xam ne dañ leen a délaissé depuis 2011 wala 2012 dañ ngi gis am Macky Sall wala lu xeetoon moom tey ñu Ousmane Sonko tegaat fa tànkam wax dëgg yàlla gis nañ ci ay ñaan gis nañ ci yaakaar gi gën a dolleeku ci moom kon loolu ñu dañ ci sant yàlla baax a baax a baax mhm. te nemmeeku tour bi moom day wër comme ni ko Ousmane Sonko waxee fii ba 2024 constaté nañu ay ralliement yoo xam ne jot naa am en cours de route loolu itam naka ngeen ko gérer naka ngeen ko apprécier bien sûr partout où la main passe repasse day continuer gis na ralliement yi mhm. nekk le début du commencement ab marathon la ak buñ fa 2024 la ñun liñ bëgg mooy Macky Sall su gestoo xam nga ñan lay gis saagakat yi xaskat yi mais du gis benn benn benn benn benn benn militant ku tekki dara ku am valeur ko xam ni ànd ak Macky Sall ñun loolu gëm te loolu fa lañu àgg ak Macky moom nag c'est un lien qui dort na ko na ay nelawam parce que quoi qu'on puisse dire département par département bu ñu mënti dem ralliement yi maa la day daal kenn ku nekk di gee boor bu nekk di dikk bàyyi nañ Macky Sall nga gis ay chef mu dem bay corrompre chef de parce que lim dégg moo tax chef de village ñun depuis 2011 dañ gëj a xam ci Macky Sall depuis on depuis 2011 lañ jot am si Abdoulaye Wade as ñu ko sax ci Macky Sall. am na imaam yoo xam ne aussi doyloon nañu. li nga xam ne xaaral mooy dund ko seer gi. Mhm. ñàkk jiw wi ah ñàkk infrastructure le minimum le minimum nit ñi suñ feebaree war nañoo faj amuñ ko nit ñi suñ bëgg jàng war nañoo jàng parce que loolu sont de sont ce sont des ce sont des besoins élémentaires. Mhm. àll bi amu fi le pays est au fin fond du a soo àggee dañu naan ñii est-ce ay Sénégal am ñoo xam ne constitué seen bopp sax Sénégal lépp mu concentré ko Dakar mais ne Dakar rek mooy Sénégal léegi nag loolu lii la Macky Sall bañoon Ousmane Sonko gis ko loolu lii la bañoon Macky Sall Ousmane Sonko jote ca mais dana su jote par A ou B. jusqu'à 2024 day métti day yàgg. partout où la mer passe il repasse. d'accord am na nag ay chefs de village. ay imam comme ni nga ko waxee mais y a des imams de village corrompus. ah non c'est-à-dire les gens ont, ont, la liberté de faire leur choix. am chacun a sa liberté. oui a sa droit de faire la politique chacun a le droit de supporter qui que ce soit. Mm. loolu moom on a loolu moom on a mais dafa am loo xam ne nii soo amee. Mm-hmm. dañ naan lii duñ ne gulit yàgg naa am. parce que nag suñ demee ba ci ab chef village. nga gis ay gendarme dem ne ne bu ngeen recevoir diw nga gis ay émissaire ñëw dina jox xaalis ab seen yu laa su ko wax dañ maa woon a recevoir Ousmane Sonko mais dama kii recevoir parce que man dëgg ci laay dox te kii dëgg la woote. Hmm. loolu am na léegi nag ñun moom suñu suñu devoir mooy ne danañ dem seet village danañ dem ci dëkk ku ñuy recevoir ku ñuy recevoir parce que njiitum réew moo demee noonu. suñu xëccoo dara bul xool ñi ànd ak yow ak ñu ànd ak yow ñu daal ku ñu recevoir danañ toog waxtaan ak yow saafante ak yow wax la sa pro wax la suñu projet de société bi société bi lan lañ bëgg ci Sénégal loolu daa daal en tout cas am nañ ci droit danañ ko def mais nag ne ñëpp man la ñuy faral loolu amul fen loolu moom jimboori moo ko jikkoo ñun jikkoowuñ loolu d' accord d' accord euh, beneen bi euh, mooy. leneen lii mooy si nemmeeku tur bi aussi. Mhm. mooy li ma la wax ne président Macky saal wala Macky Sall moom moo nekk suñu directeur de aussi suñu sécurité. Mhm. c' que seetlu nañ wax dëgg yàlla lim mobilisé ci gendarmerie escadron yi ñu toppoon su ko yóbboon ci àll bi nga xam dañuy sàcc seen jur tayef gémm dëkk bërki déema sàcc nañ fa 40 xar bayla chaque jour dañ fay sàcc ay xar damaa jàpp loolu su ko yóbboon ci monde bi yaakaar naa ñoom ñoo ko gën a soxla ko Ousmane Sonko te li ma gën a jaaxal nag mooy Ousmane Sonko moom damaa jàpp ne munkir ak nakir c'est-à-dire gendarmerie ak police dëkk bu mu dem man jàppee naa ne moo ëpp sécurité sax Macky dem ba ay hélicoptère di ko topp xam loolu dafa dafa dafa yéemu ci Sénégal 2022. oui mais information yi nga xam ne moom la ñu am ba tax ñuy agir noonu aussi est-ce que yéen am ngeen ko. waaw mais xam nga ñun. Mhm. defuñ trouble à l'ordre public. d'abord participer wuñ à une manifestation non autoriser mhm. loolu amu ci. te ñoom loolu lañ may Ousmane soo ut autorisation lan lay autorisation ñu dem bañ ko doo wàcc oto bi xeetu xooqatal googu doo wàcc oto bi parce que soo wàcc oto bi da ngay jëriñu fuul ñu dem bañ ne ko ñaari ni buñ la wër. Ousmane Sonko comme ni ko waxee vidéo boobu mën a filmé gis nga. dafa wan ak jàmbaar wan ak bëgg réew mi wan ne moom du nangu l'oppression mu ñëw ba ci colonel bi Alioune Diop na ko lii may def kenn ku ma ko mën a def amul te suba damay damay damay continuer sama nemmeeku mun la yéen fekkee da ngeen lii ngeen bañ ngeen ngeen bëgg koo bañ xanaa tey ngeen ko bëgg a bañ. mun leen man su ma demee ci xalifa général des mourides man mi xam ne nii heure bu demee Touba souvent damay ànd di ko couvrir gis naa nit ñi amuñ sago ci Sonko. de président Sonko du dem benn kër di tàggoo naan maa ngi ñëw kër googu day jékki-jékki rek bett sëriñ bi rek ñëw mais su ko ni ñi déggee ña ca waañ waañ ña doon fees ak ñëpp dañ koy kar tellement du mën a génn waaye léegi loolu noonu suñ ko aayee kon nemmeeku tur nañ ko aaye mais aayul loolu pare ñu ne nemmeeku nañ ko aaye loolu loolu amul fenn deux poids deux mesures xam nga nan la ñaar ñoo fi nekk ku xam ni peuple dañ ko bëgg def ko seen doom ak ki xam ne nii dañ ko naan tàccu tey ñu koy sànni xeer mu dem ba impopularité boobu mu nekkee mu dem ba ci jaar ci VNM di Arcos jël ay militants am naa leen su ma ñëwee wax leen ne troisième mandat bi ay demande social et ainsi di créer ay scénario moom mënoon naa dem ka mënoon naa dem jàngi Kassine nag ñoom ay Moreau Dégg ay institut yooyu ñu jàngale na la ñuy théâtre dëgg-dëgg parce que ñoom loolu jigu leen heure ñu organiser dara mu échec mu nekk fiasco te nekk contre ñoom xoolal affaire Adji Sarr scénario bu baaxul tey mu dem ci bu baaxul Ousmane Sonko nag yàlla dafa def li muy def ndogal la kenn mënu ci dara c'est-à-dire su jaaroon fee wala mu war a ñëw fii wala mu dikk par kenn yëgu su nit ñi yëgee ne Ousmane Sonko jaar fi wala mi ngi fi mu nekk am diir ndiir mi topp loolu kenn mënu ci dara loolu yi nag kum mitra da ngay kalaam suñu borom wala nga maat sa bakkan d'accord alors ci ci ci loolu gis nañu également ci nemmeeku tour bi euh, Ousmane Sonko daje na ak Mimi Touré mm-hmm. euh, ndaje boobu lan mooy motivation bi. en am nga ci ay détails ci presse bi laa koy yëgee. tey suba laa ko information boobu euh, bon maa ngi gëstu leer gu mën a baax am naa ci certitude ne am na mm-hmm. mais li ma waxoon rek fan yee ci presse bi ci média am na peut-être bari comprendre ñu ma def naa sotti wax ne ñun Mimi Touré d'accord yu woon yenn position mais projet bi Ousmane Sonko da koo leer ci livre solution mu nekk benn vision mu ne projet bi du jëmmi nit waaye nag ay valeur ci lañ jàppee nit ay valeur ci lañ exclure nit ci projet bi mu ni képp ko xam ni mosoo lekk xaalis képp ko xam ni am na pratique yoo xam ni sont des pratiques manichéennes projet bi soxla na la ma ne leen Mimi Touré man patriote en tant que patriote ak ku ñuy niiwal doole man képp ko xam ne nii rek man je combattre euh, la violence à travers toutes ses formes l'injustice de la combattre à travers toutes ses ma ne Mimi Touré ñun dañu nangu man boog Diop Taïb du ma seetaan Macky Sall di ko jaay doole di ko liquider di ko faaga du ma ko nangu te nag projet Pastef que ah, bàqaloo mu dafa fekk mu xaw a féetee opposition rek moo tax. ñu bëgg ko jëlal part non non diitu ah, non diitu xeexal nañ fi. TV. bi ñu ko nee tëj dañ ko xeexal. état d' autre état d' mën naa ay ay combat patriotique ay combat yi xam ne sont des combats citoyens ñun porte nañ ko. Mhm. te pourtant ñooñu ñu chaque jour ñi ñuy saaga chaque jour ñi ñuy xas chaque jour ñi ñuy diaboliser mais suba su Macky Sall taxaw na dinañ tër ren dañuy taxaw opposé ko parce que loolu moom mooy politique. la politique politicienne dañ ko fi war a jëlee par parloo gi dañ ko fi war a jëlee ñu Ousmane Sonko lu ñu seqal moom mooy le Sénégal suñu dee boo xam ne gisuñ ci boo am ci ko fi bàyyi ni yàq ba naqari mais heureusement lépp loo xam ne nii ngi ciy yaakaar lépp loo xam ne nii mébél la rek moom mi ngi ci ma ne Mimi Touré Macky Sall da koo tooñ c'est-à-dire dañoo bokkut gis-gis politique parce que moom dane problème ak Macky Sall mooy troisième mandat te mii mos a changé ay waxam Macky a def loolu moom loo mën a waxal Mimi Touré mos Macky mënut a def troisième mandat da si mës da si mës a léegi nag loolu ñun dafa am kon benn idéal boo xam ne bokk nañ ko c'est-à-dire mas na nguur te su ko neexoon delluwaat ci Macky Macky jox ay million mu noppi mais def ko dafa continuer di wax ne Macky Sall mun a def man mandat loolu tax ma ne te Mimi kenn rek kenn mësu taxaw ne lekk na un franc état kenn mësu ko wax mësuma ko dégg te Macky Sall mii képp ku opposé wu sooy boo nga pare xam ne lépp lu mun a xamal ci mbóot moom sax day créer mbóot soo mun mbóot sax moom mais création ñoom mënuñ ko c'est-à-dire ñoom scénario mënuñ ko ma xam ne Mimi Touré mii ak Ousmane Sonko am na benn point focal boo xam ni am nañ ko am nañ benn dénominateur commun am nañ ko mooy ñoom président Sonko li wax sama seul cible mooy Macky Sall man sama opposant Macky Sall la ay ñeneen ñii ñii ay gone yi daw nañ léegi nag comme que Mimi Touré moom taxaw na day opposé ne 2024 Macky Sall du bokk ñun loolu dañ ci ànd ak moom xeex boobu suñ ci wooyee dañ ci fekk si parce que loolu dafa ñu ci fekk si woon non au troisième candidature loolu ñun dañ cee xeex ñun patriotes yi loolu la Sénégal ba ñuy dégg képp ku ñu ci woo ci loolu dañ fekk parce que ku ñu fekk si ñëw gunge la jàppal la la. loolu la ñuy Mimi woo nañ ko ci fekk si. Mhm. loolu tax ma ne ñun projet bi patriote yi damay bañ ñuy gaaw Mimi Touré wax na fi lii wax na fi laa mais Ousmane Sonko Lansana Gagny Sakho am na lu mu ko traité woon ba mu xam ni Ousmane Sonko dafa nekk ci dëgg da ko fekk si état doute état doute na fi Ousmane Sonko Sonko mais en un moment donné bañ xam ne ànd mënut a ñàkk parce que Ousmane Sonko am na lu mu woote loo xam ne nii Sénégal bu nekk mi ngi ci identifié wu mu nekk un dénominateur commun dañ koy fekk si loolu tax nag ma ne Ousmane Sonko toogal Mimi Touré ci waxu troisième mandat mënta nekk ak mën naa nekk loolu man du ma bett man de bettu ma xaw ma yan patriote lay bett bettu ma parce que Ousmane Sonko li wét wóor mooy ñun moom la ñu amal affaire c'est-à-dire du ñu war il va nous il ne nous trahira jamais incha allah rabbi loolu moom on a dit qu'on vient même pas. comme que nag ñun am nañ gaan ne kii du ñu war. dañuy faral di wax ne il ne faut jamais dire jamais en politique ah. non xam nga ku taxaw daal di teg ci ku taxaw waat. ne musuma lekk deux mu Sénégal musuma lekk riba quinze ans liggéey naa ko impôt domaine ku xam ne mooy mës lekk dërëm nag ma wax te Ousmane ko depuis ñun bañ ko xamee wala bañ koy suivre bañ ko dalee suivre ba léegi dindi ay œuvre mu ci see gis loo xam ne wax na ko mu waroon mu mu mu mu waroo tey ak li mu waxoon démb. kon loolu dèjà rek war nañoo jàpp ni kii moom duñu war mu taxaw daan ne bis mooy réew cumul de mandat dama ko fi éliminer si biir parti am cumul de mandat am ñoom ñu gànd na ñoom danañ démissionné si waxtu jotee loolu yaakaar la. mais est-ce que yeewul waxtu wa jotee. waxtu bi kañ la xaaral ma àggale rek ah. mu daal di taxawaat daal ne képp ku ànd ak man soo lekkee un franc ci commune mairie Ziguinchor wala commune yi wala mairie yooyu. wala hmm. mairie Pastef mu insiste ci mairie Pastef wala xam ne élu local nga élu locaux yi bokk ci Pastef ku ci lekk un franc un lekk. man maa lay yóbbu ci yoon maa lay plainte kooku ku ko wax wax dëgg yàlla am na yaakaar su dem mairie Ziguinchor bi rek la preuve en est que c'est la preuve formelle pour Ousmane Sonko ñu jox réew mi il est temps que Ousmane Sonko ñu jox parce que mairie Ziguinchor bi la mu fa def ñu bloqué budget bi c'est-à-dire amul benn budget ci communes yi amul benn budget boo xam ne exécuté nañ ko l'état central dafa téye dafa téye budget parce que amul xaalis loolu mooy problème bi avec ses propres moyens du état du xaalisu dajale si ak bëccëg un milliard cinq cent et quelques millions lam def Ziguinchor ñëpp gis nañ ko mu dajale ay nit ñoo xam ne sont des volontaires patriotiques chaque jour dañuy ñëw di bale Ziguinchor avant six mois de cela mu prépare hivernage am def une semaine citoyen woos patriote yëpp ñu ngi ñu jàppale ko loo xam ne Ablaye Baldé quatre-vingts la ci daan def et tant d'autres et tant d'autres soo nga xam ne euh, Ousmane Sonko mi ko yor dafa mel ni dix ans la ko yor wala douze ans la ko yor te pourtant six mois képp la mais loolu yaakaaruñu dégg réew. ka nekk si nga sox gee naa leen président de la en exercice mhm. du maire te ñun parti loolu lañ gëm te incha allah rabbi incha allah rabbi dama lay wax lu wér mhm. fii laa koy wax incha allah rabbi deux vingt quatre moom suñu benn tànk ma nga pare d'accord te àgguñ fa euh, dañuy dañuy euh, jeexal ndax euh, temps bi ñu amee woon jeex na makisal Sall démb ci forum Euh, sur la paix la sécurité en Afrique le forum de Dakar euh, daal dina artuwaat ñi nga xam ne ñooy nekk ci réseaux sociaux yi di saaga euh, njëkkoon na ko def tey mu feddaliwaat ko réaction bi ngeen ci am parce que souvent dañuy faral di wax ne yéen Pastef yéenay faral di nekk ci réseaux sociaux yi di saaga tontu bi nga ci apporté waaw avant tout d'abord Macky Sall dama koy rappeler rek mhm. benn déclaration mu def mu ne la Macédoine fera face à la toute puissance du flic et du clic tey 2022 wax jooju moo ko dab moo ko waxoon Ablaye Wade mm-hmm. xale yi Pastef yi wala xale yi patriote yi wax la magie dina fera face à la toute-puissance di kàcc et di sàcc te loolu moo am mm-hmm. la preuve en est que moom réseaux sociaux dañ ko jaaxal te bu njëkk dañ ko doon minimiser moom da koo fàtte parce que bi naan Ablaye Wade sa doole ji nga yor sa presse bi nga identifié presse traditionnelle mu tënk ko téye ko léegi nii 2022 lañu nekk ñaata sit ñoo fi am réseaux sociaux yi ni mu demee moom mëntu parce que ñun passif lépp lu ñu am nañ ko gërëmee liveur yi lépp lu ñu am nañ ko gërëmee sit internet parce que ma Sall bi mu ñuy 2012 dafa identifier presse parce que dañ naan la presse c'est le c'est le quatrième pouvoir Abdoulaye Wade sens bu amu ko c'est-à-dire Abdoulaye ñëpp xam ne presse bokk na lu contribuer ci bu jóge fi sitam Macky Sall bi ñu ñëwee ay Abdoulatif Coulibaly ay Souleymane Jules Diop et tant d'autres Penda Mbow ay TFM ainsi mu identifier leen jàppale na mën na fee toog ba 2035 suñu borom bi tëwul indi réseaux sociaux indi Mark Zuckerberg kale ci poos Ousmane Sonko bi mu ne bëreet dañu candidat réseaux sociaux yi candidat ndaw yi du dem fenn ndaw yi moom mënuñoo vo duñ voté sax dañoo tayal a voté réseaux sociaux yi moom ñu bari bon connecté wuñ bon ay kaw kaw lañ expliqué yooyu ah, ñu dem xoolal tey jii 2006 ak léegi Macky Sall nag dama ko wax réseaux sociaux yi moo ko tourmenté bopp bi ndeysaan di nuyu baax a baax a baax mafia kàcc kàcc mm-hmm. eh, bon di la ñaanal rek euh, Ousmane Diagne fa mu nekk. ak mboolem patriote yi ñu ci jàpp mooy force spéciale bi yàlla ne suñu borom niite seen yoon ba musal leen ci pexam Macky Sall parce que fañ nekk Macky Sall rek moo leen fa bàyyi te su bëggoon suba ñu tijji leen ñu dem ñibbi waaw ñu ngi massa bu baax seen seen njaboot bi di la wax ne gis nga réseaux sociaux yi mën na koo régulage mën ta nekk te nee naa dana met dana yàgg gis na ñun anticorps yi saaga wuñ xaste wuñ parce que taluñ ko ñun projet bi lañ tal projet bi lañ bi nag lépp loo xam dañuy yóbbu bale ñun ca lañ nekk lépp loo xam daf ñu koy xañ parce que président Sonko nee na patriote yëpp jël leen seen responsabilité réseaux sociaux yi nañ ko en bon escient c'est-à-dire lépp loo xam njariñ la nañ ko def lépp loo projet bi ci lañ nekk saagawuñ xasawuñ xulawuñ président Sonko soo xoolee doo gis mu ànd ak foto ab saagkat bañ na ba à Touba dafa wax ne képp kuy saaga àndoog man mais loolu dafa dëgg sëkk amul benn leader bu ko wax président ma Sall mi xam ne moom mooy la gardien de la constitution est-ce que wax na ko ñi mu ko osé wax ku dem ba dalal ab saagakat accordé ko benn interview 23 minutes yéen ana journaliste yéen ña xam ne su ngeen bëggoon benn interview yéen Sénégal si mën lu am ci Macky Sall ana saag Karim nga dem ba saaga c'est la bassesse c'est-à-dire avec Macky Sall c'est la promotion de la médiocrité sàcc yi fenkat yi burukat yi saagakat yi ñoom lay jël di nommé ay ministre c'est que loolu mooy problème xool gouvernement bi barki de mu ne gouvernement de combat te soo xoolee ñu fan ñoo nekk ci réseaux sociaux di saaga Sonko képp am promotion képp koo xam ne nii nag yaa ngi wane yambar wala di wane élégance politique Macky Sall da la fi jëlee loolu moo ñun nag dañ koy wax dañ koy renvoyer bal bi comme comme moom moo yor ay saagkat bu yóbbu leen hémicycle bi si assemblée national ñu yor seen i fetal naan xaw ma dañuy fetal xaw ma je ne sais comme moo yor ay saagakat di leen interview ñun nag li xam ni nii ñun moo ñu war moo ñun à chaque fois que jëfee heure ñu xëyee dañuy sëgg ci projet bi c'est-à-dire lépp loo xam ne nii day yóbbu Ousmane Sonko 2024 pale ba. Hmm. te xëy ci lañ gont di ko wax nag xuppaate yi muy def yëpp. ay réduire l'opposition à sa plus simple expression je vais traquer les insulteurs insultés yooyu yëpp xoqatal googu laa wax mënuñu yëngal yëngaluñu. fii mais da ngeen ci gis seen bopp. non c'est-à-dire da nga ne yéen patriotes yi Macky Sall nee na dana identifier nangam nangam. dana régulariser réseaux sociaux yi. dafay identifier dafay dafay. dafay artu dafay artu. sàggal ñi nga xam ñooy saaga ci réseaux sociaux yi. ma la oui. Ousmane Sonko. Mhm. musta ànd ak ab saagkat di photo man xawma ab patriote man xawma ab patriote bu am carte passé di saaga man umu xawma mm. si sëriñ xawma man mii di wax ak yow damay live man mii wax live lañ ma xamee léegi nag yàlla dogoon na sax si di di xëccoog yow Ousmane Sonko parce que Sonko léegi jeeg bu jar mais bu njëkk ñun patriote ñoo yóbbu Ousmane Sonko fi mu ñoo naan jël di live di wax ci moom ñu naan yéen ay da ngeen a ah, dof yéen da ngeen a liggéey presse bi tamit liggéey ah, dee dee leen delloo njukkal nag presse bi presse bi dee leen ko delloo ba léegi minimiser presse bi non non non attends yéen waa Pastef nag yéen yéen li ngeen woon presse bi du dëgg du yoon te presse bi nag ñu ngi ñu ngi liggéey di équilibré li nga xam ne ku ci ne sa cër la ñu jox la ko waaye nag lii information mu arrangé leen ñàkk leen arrangé dañ ciy ngoy nag loolu mooy suñu yàlla presse digne de ce nom nga xam ne nii dañoo dañoo dañoo dañoo yeeyoo sant ak gërëm mais y a la presse traditionnelle corrompue certes de prime ñooñu duñu leen gërëm parce tax gis nga Sonko dama lay expliquer Sonko dama bi ànd ak moom wala presse bi xam ni dëgg moo ko tax a jóg mhm. day saagu Ousmane Sonko moom mooy gën a jar sax presse bi xam ne nii dëgg ko tax a jóg est-ce que yaa ngi comprendre mhm. comme que ñiy saaga yaa ngi dégg damaa bëgg wax ji dafa am dégg-dégg dama ne presse ba xam ne nii euh, Ousmane Sonko day fay dañuy diaboliser Ousmane Sonko di def la une wooy Ousmane Sonko dans la salle drap Ousmane Sonko le violeur au procès Adji Sarr expliqué convocation Ousmane Sonko ñooñu seen une xool day jar parce que patriote dañuy dem jënd ko par force parce que lépp loo xam ne di di patriote wala lépp loo xam ni projet bi da cee hypothèque patriote yi ñoom amuñu sago loolu tax man la gis nga Ousmane Sonko day fay ni muy fayee ñiy saaga ñu leen nommé ay minis di leen nommé ay DG ni dañ koy diaboliser da leen fay. parce que foofu la toll. léegi nag maanaam daal Sonko dafa barkeel nga bëgg a wax. lum laal day barkeel Ousmane Sonko. Hmm. lum laal day barkeel. bala nga xam rek bala nga koy xam léegi lu ma xam bala nga koy xam nga ne Ousmane Sonko nangam wala lii Sonko lum laal day barkeel loo doon jaay taf ci Sonko soo bëggee mu jaay taf ci Sonko soo bëgg non c'est soo bëggee Macky Sall jox la ay million saagal Sonko day fay loolu suñu borom la moo ko def martaba la boo xam ne su borom moo ko def loolu nag amul ci benn politicien nga bëgg ko nga bañ ko amul ci benn politicien ko xam ne soo koy saaga dañ la nuy ministre yow ministre ak ni mu toll bu njëkk ministre su ñuy kii ministre la ministre de la république. mais gëdd bi muy am est-ce que doo dépassionné kii directeur gëdd def la promotion de la médiocrité sàcc fenkat yi wurukat yi ak sàcc yi Sonko yi nommé ay ministre c'est que loolu mooy scandale moo ñaawlu lool c'est de la basse xeebu lool ministre de la république. ñu ne kii CV mooy na sacre Sonko la moom daa Sénégal set euh, ministre de la jeunesse la preuve en est que Pape Malick Ndour kay xawoon leen rey avant ñu ko nommé ministre plateau bu ne Sénégal set site yëpp wër na ko site yëpp wër na ko. CV mooy la mooy saaga Ousmane Sonko jàppale Ousmane Sonko fan lañ ko ministre tey muy muy exprimer waaw dama ne comme que Macky Sall moom président de la République moom moo boobu damaa jël Ousmane Sonko mi xam ne moom promotion contre c'est-à-dire képp ku nekk patriote nga yor carte Pastef ñu amoo osé di saaga. d'accord looy tàggoo Diop Diop Taïf. bon li may tàggoo mooy. sant patriote yëpp gërëm patriote yëpp. dinañ wax ne c'est le début du commencement. 2016 ak léegi dara xewu fi loolu lañ gëm loolu lañ jàpp dana metti dana tar dana ñu terroriser dana ñu xañ barabu liggéeykaay dana ñu dàq dàqaan dana ñu tëj ay kaso ay bakkan dana ci wadd loolu moom. c'est un don de soi sacrifice mën ta ñàkk mais nañ ko jëlee dina manière philosophique c'est-à-dire fañ bëgg a àgg moo tax dañoo bañ a layoo ak suñuy sët dañoo bañ a layoo ak suñuy sët encore une fois wax naa ko deux fois parce que li dal Mamadou Dia suñuy maam ñun bëgguñ mu dal ñu bëgguñ suñ toogee ak suñuy sët ñu yeeñu loolu tax Ousmane Sonko dañ koy téye ak ñaari loxo duñ ko bàyyi mukk Macky Sall tuut na ci faagal Ousmane Sonko ak mel ni Macky Sall sax wala ku yées Macky Sall wala ku ëpp maqaam Macky Sall sax tuut na ci éliminer Ousmane Sonko 2024 ba ñu bokk loolu tax may wax ma ne patriotes yi partout où la main passe et repasse dem leen au fin fond du pays dem leen ngeen envoyé message Ousmane Sonko population ñu décrypter ko ñu décrypter ko xam réellement lan la Ousmane Sonko bëgg Sénégal mooy bourse familiale yi ngeen installé celui partout ci village yi wax leen lan la président Sonko bëgg exactement mooy Sénégal bi ñëpp bokk lu ñëpp bokk ñëpp jot ci loolu képp la yéene Sénégal waaye intérêt boobu yëkkatiw ko. intérêt njabootam yëkkatiwu ko bokk te ki xam ne nii léegi yottu dinaa si waaye ab dëkk la yor c'est-à-dire màgg na parce que tong-tong gi sàcc alal réew mi rawale alal réew mi loolu dafay war a jeex. Hmm. Sénégal gii li ko yàlla teral dafa doy sëkk. war na nag gàcce weesuwul ñu naan le Sénégal c'est un mania assis sur une mine d'or suñu borom teral nañu te képp ku suñu borom teral peuple boobu suñu borom dafa bëgg dimbali. ndimbali nag gisuñ ko ci kenn ku du Ousmane Sonko kon 2024 yéen suñu papa yi. yéen suñu doom yi yéen suñu rakk yi yéen suñu jarbaat yi ku amul carte d'identité demal uti carte d'identité ku ñu wax sa carte d'identité bind nañ ci non votant bu ko déposé police yi dem leen wala ngeen kaar bañ tijj fichier électoral bi ngeen dem inscrire c'est le moment ou jamais Ousmane Sonko suñu rawee c'est fini pour nous Sénégal damaa jàpp ne yàlla moon na namul Sénégal jag loolu kon la kon maa ngi wax ne le focus 2024 di di la sant aussi di la gërëm bu baax a baax a baax Abdou di rafetlu liggéey Sénégal set parce que heure bu fi dañuy gis avancement kon nag lii c'est une équipe jeune dañu leen ñaanal fépp fu ngeen bëgg a àgg rek yàlla ngeen fa àggale di wax naa suñu projet bi mébét bi ñu si am yàlla na ko suñu borom mottali di jaajëfal patriote yëpp di jëfal euh, sëñ Ibrahima Pikine mi ma àndal di sant sëñ Abdou Mbacke yàlla na ko si borom yàggal Daaru Muxti gis nañ taxawaay bi mu am ci patriote yëpp di sant groupe volontaire les les groupe volontaire whatsapp les volontaires patriotes maa ngi leen sant bu baax di leen jaajëfal. jërëjëf jërëjëf Diop euh, moom lañ doon dalal fii ci Sénégal 7. jërë ngeen jëf mbokk yi si jasporaa bi ak ci Sénégal ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaan ngeen wéy di ànd ak Sénégal 7 jërë ngeen jëf ba beneen.